mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement bu mag jàkkaarloowaat ak yéen mbokk yi ñuy nuyu réew mi di nuyu biti réew mbokk yi nag di leen xamal ni ñu ngi jëm ci bés bu mag muy bésu le 11 février ñu ànd ceeg Assane Ndiaye Baol production mu lu ñu combat boo xamante ni combat de choc la. combat boo xamante ni ax lu làmb ñoo ko namm amateurs yi ñoo ko demandé Assane indi lu ñu ko le 11 février muy diggante Bébé Diène ak ki nga xamante ni mooy Gàkku 2 tey nag ñoo ngi fii Médina. fekk si fi ki nga xamante ni un très grand champion xale la espoir la ndaanaan la jàmbaar la bi muy mujj ci làmb fële ci arène nationale Frière la fa am bëre fa bëre boo xamante ni kenn dootu ko fàtte souvenir indélébile la tey moom la ñu seet si doomu Médina bi Bébé Diène waaw Baye Balla maa lay ziar ma sant yàlla julli séenante bi di sant sama ñaari waajur xam nga di ñaanal sama papa fu mu nekk yàlla na ko yàlla gënal fu mu jóge ak képp koo xamante ni dem na mm-hmm. di ñaanal yàlla sama yaay ak képp kuy waajuru jàmbur mu yàgg fi ak ñu may àndal waa di nuyu waa Touba sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke maa koy nuyu bu baax di nuyu waa Ndindi di ñaanal xalifa généraux yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm may leen wér-gu-yaram ak gudd fan di nuyu waa Canaba di nuyu xalifa bi Canaba di nuy xam ay njabootam di nuyu waa Tiwaawoon di nuyu waa Njaasaan di nuyu waa laay laay laay xam nga di dëkk Ngor maa leen di nuyu bu baax waa di nuyu tamit xam nga ñu ma fi fekkal di leen nuyu yeen presse bi ndax kenn amul seen fay waaw di nuyu xam nga waa Médina yëpp maa leen di nuyu Médina Fass Gueule Tapée Colobane xam nga xam nga ñaay ba ñëpp maa leen di nuyu xam nga ndakaaru yëpp maa leen di bëggee ak waa Médine waaw rawatina nag fu ma dëkk waa Kusum waa Risseng maa leen di bëggee bu baax a baax. Uh-huh. Ah, euh, Bébé Diène naka nga préparé combat bi sa diggante gàkku deux parce que yow xam nga ci combat bi nga jëm. xam nga xale bi ngay dajal. Mm-hmm. naka nga préparé combat bi. waaw waaj naa ko ak samay mbokk waaj ko ak samay entraîneur sama waa écurie ku si mel ni sama papa Kayre mention spéciale waaw maa koy nuyu bu baax a baax. jàpp na si man du ñaanal tamit mbëri nekk écurie Soumbédioune sampion yëpp ku si mel nii sama turandoo Diène ñoom mañi xam ma ak ñoom abada mbër yi nekk foofu yëpp maa leen di ñaanal jàmm ñu am ndam ak suñu waa saal xam ma ku si mel ni grand maam Thierno xam ma sama coach si As képp koy ni immobile Kébé rek maa leen di nuyu bu baax a baax di nuyu maam Thierno taalibi sëñ Abdou Karim di nuyu sama papa Abdou Salam comme ni ma ko doon waxee sama grand mama naar sama mag Bas xam ma maa koy nuyu bu baax ak ñu fi nekk ñoom Sidi ñoom Koutia xam ma ku si mel ni Fada Loof xam ma xam ma ku si mel ne sama grand bas ku si mel nii xam ma ñoom tubaab xam ma dañuy sonn si man xam ma Tafa Cissé xam ma ñoom laay xam ma sama boy dañu jóge ba yombal ñëw fii pour combat bi ñoom Matar waaw maa leen di bëggee ak Kalilu bu baax a baax. Mhm. waaw. léegi ñu ñëw ci combat bi sa diggante ak sa adversaire mhm. sa ak lu làmb yëpp xam nañ ko ci mën a bëre mhm. xam nañ ko ci mën a xeex li koy firnde mooy combat bi mu mujjee bëri ci digganteem ak Boy Dakar te xam nga ni Boy Dakar ndaanaan la ku ko daan champion nga mm-hmm. dafa bëri ay xale yoo xamante ne dañu nekkoon ci làmb ji di ko lëmbi moom moo leen freiné est-ce que xam nga xale bi ngay dajee Baye Balla Mbuub mm-hmm. man dafa am fu ma war a dem man maa koy remercier bu baax nag gàkku dee ndax champion toog naa deux ans bëréew ma ma ñëw xam ma moom ma njëkk a may xaalis bu may yóbbul sama yaay ak Assane Ndiaye promoteur maa leen di sant yàlla bu baax a baax mais nag dina ko wax ne ni xam ma nii yëpp ay gaan lañu ay lii sama yaay dafa seetaan la signature bi sax mu ne bul wax lii bul wax lii xam ma làmb moo leen boole xam ma ñoo bokk ndax Sénégal sama waay la mais jouru làmb ji nag amul waay arbitre bu soufflé maay sa kaw waaw di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam bu sedd guy ci barki sëñ fàllu Mbacké champion la ko waa avant tout hina damay nuyu sama mbokk yi di nga leen nuyu waaw hina hiwraade mm. kala ko ɓiɗɗo pullo fuuta woni hina hiwraade ɓe hina hiwraade waa gine fof mm-hmm. ko ndaara kamma ɓe kañum maate popodara e timbi madina amma e eh, kulan mawde komi jannguno toon pay komin komin komi taaliba maɓɓe ko ɗon mbenamunoolon jannde hina hiwraade ɓe fof amma kala ko ɓiɗɗo pullo fuuta woni hina hiwraade ɓe mm-hmm. hina hiwraade waa sandiniéri bo ba koto jeego mi yii ko watton ko fof mi weltike ak du Six avenir maa koy bëggee bu baax sama mbokk la xam ma di nuyu képp koy pël Fuuta maa lay bëggee waaw di nuyu tamit Sénégal waa Sénégal moom aw ma seen fay wallaay azim waaw ma aw ma seen fay ko waa waaw. Mhm. Mhm. ñëw jàpp ci combat bi. waaw parce bi moo ko waaw booy Gackou 2. waaw seetaan naa ko. seetaan naa ko. xale yi mu freiné. seetaan naa ko gis nga kii taxaw nii sama mag bii Sidi moo tax ma dugg si làmb. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. dafa ma newoon dina ak bëre ak fourrière te boobu man ak moom mbalit lañu dugg pour ñu seetaan leen. Hmm. amuñu woon paas ay booy ndaw lañu ñu ñu maye porte yi ñu dugg mu ne ma yaa kii di ngeen bëre. mu jékki-jékki neewaat ma yow gàqu dee même làmb la di ngeen di bëre ji ak ndongoloo sital na ma ndongoloo. mais ñaari adversaires yi ñëw na Fourrière ñëw na am na fu ñu jaar gàkku dee dina ñëwaat sambi incha allahu rabbi dina am fu ñuy jaar waaw. yaa ngi sóoraale gàkku dee ci xeex bi. kan man. Mm-hmm. man armée de guerre laa jëm commando yi ñoo ma waajal. BRFR waaw ñoo ma waajal pare naa fépp waaw kenn nag du dem guerre di wax xam ma escar yi ngay teg affaire yooyu noonu Père Kayra wax na ma lépp mm-hmm. amatuma lu may wax. daf la bi. waaw am am xam nga booy dem guerre. dañ lay tegal taabul xama woo minteer yëpp toog ñu bindal la fii ak fii ngay jaar xam nga te kenn du ko yëg yéen yaa leen koy yëg ñu biir mais incha allah bu taxawee dina xam na nii xam nga plan bu ñu ma jox incha allah dinaa ko exploité waaw. combat bu gaaw ngay bëri ak Gackou 2 wala. waaw. walla nga yóbbu combat bi à l'usure. <laughs> moom moo doon ne combat yi daf may yóbbu à l'usure mu jékki-jékki naan komba bu gaaw la comprendre nga mais moom na taxaw dëggal boppam rek hmm. na taxaw dëggal boppam rek. bu taxawee dëggal dëggal boppam di nga xeex. ma jël lu ma moom. andil ko waa Medina. gàkku dë ngay waxal de. te waa Medina instant dañoo namm ndam. waaw te incha allah yàlla def na nag am na ay mbër yu bëri fi nekk. mais yàlla si man la ko jaarale instant yi waa 1000 pour cent bi waa Medina di leen sant di leen gërëm. di nuyu xam ma mbëri fa ñëw yëpp suñu mag Gris Bordeaux Serigne Ndiaye xam ma. Mm-hmm. kii Forza Ibu Afia. xam ma ñoom Manick ñoom Pakola sama booy jóge ba Pikine ñëw xam ma ñoom Pakola xam ma maa leen di bëggee bu baax a baax waaw ñoom Forza 2 gis naa mbër yëpp xam ma ñoom Njaga Faas ñoom Ibu Afia ñoom Mbay Guy gi sama mbokk Bawol booy lii nag maa leen di nuyu ku si mel ni ñoom Kewel Mbay Guy gi xam ma maa leen di bëggee bu baax pour sin ñoom ñëpp ñëw nañ waaw maa leen di bëggee bu baax waaw di nuyu Mame Goor Samb ak Père Khadim Balla Gueye nañ ñëw jàppale ma ak ñoom Père parce que xam nga ñoo ma doon député quoi ak sama papa Mbaye Diouf eh, maa ngi nuyu képp kuy bawol bawol maa lay nuyu xam nga di nuyu tami xam nga sama gars yi nekk France père Aba Thiagne père Idi maa lay bëggee bu baax père Bamba te waa France dañ ma ubbil fan si club foofu ñoom Mbacke ñoo ko géré xam nga ñoom Bukari xam nga ñoom Aline Ndiaye ñoo ko géré waaw ak waa Suisse waaw. waaw. mais. combat la boo xamante ne man ñaar cinquante cinquante ñoo tolloo ñu ñaar même taille. ci poids tamit boo booy xool ñaar ñoo xaw a tolloo tuuti ci poids. Bébé Diène mosul bëri combat bu yomb ay combat am toujours dañuy gis combat yu métti lay bëri. waaw xam nga tamit nit xam nga boo bañee fu nga dëkk dafa fekk nga gën say ñaaw mhm. te man sama maam xam ma ñépp xam nañ ko fii xam nga jàmbaar la quoi wallaay azim te man awma lu dul dereedu pël Fuuta waaw mais tamit fii laa xam yàlla moo dogal loolu Sénégal laa xam xam ma fii laa nekk xam ma may gis samay mbokk bool bool xam ma sama mbokk séeréer maa leen di nuyu xam ma di leen sant bu baax a baax di teg nuyoo bi sama papa loxo papa dudu ñaan ak père Girène ak waa Jaxaaw Siin père Ibu Kama maa leen di bëggee aw ma seen fay waaw nañ si jàpp bu baax ak waa Touba yaay ak père Diawo yaay

champion la moo fi ëpp ay victoire kon xam nga kooku xam nga làmb xam nga làmb te man dafa dem ba ne mbër arrêtel parce que dama kontaan si yow pare nga waaw macha allah aw ma lu may hésité yàlla nag moo am ndam moo moom ndam man yàlla laa yaakaar yaakaar xam ma yaakaar yàlla ak ñu may ñaanal te lépp tamit damay ñaan lu gën si man waaw maay yàlla ma yàlla may ndam bu gaaw waaw ah bàyyi Balla Mbuub ñaata ar ñaata combat nga ma arbitré bëre dóor xam nga moom day wax quinze combat la am bëre dóor mais nit ki mun nga am cinq combat bëre yegg si kaw mm-hmm. di daan ay ponkol mm-hmm. man xeex man loolu lañ may tiital saa pour ma bàyyi xeex dem bëre mm-hmm. waaw mais sport la lu mu guux mooy fii nee naa la armée de guerre dama pare lépp takk samay saak takk samay débisement lépp kon bu la déggee bi da nga ci préparé ci xeex parce que man xeexkat la. dóor la wax. ku nekk ko xam na ni bëre dóor la wax bu àndee bëre ma duma ko bu bu bëree ma daan ko. Hmm. waaw incha allahu rabbi. Eh, waaw. gàqu de Ibrahima Seck. Eh. waaw man sama retour du yow yaa may téye. Fàllu hmm. war na sëñ Abdou Karim Mbacke incha allahu rabbi boo taxee ma duma la boo bëree ma daan la maa la ko wax. incha allahu rabbi xam nga tamit xam nga tamit damay wax tamit lenn xam nga jour signature bi wax naa ko man double nationalité la xam nga nationalité yee xam nga comprendre nga rek man bu ma nee dama jàngi dama ne yaay garaawul baa ma dem dóori waaw liggéey doole waaw dem bëre xam nga moo tax waa mais ay ay ay kàngam rek ñoo nekk sama ginnaaw double nationalité guinéen sénégalais. Mm. te jouru làmb ji du ma ëppale dara waxoon naa ko lii rek open press war na ko firndeel. Mm. di tamit di woo waa Géejawaay sama papa njaga maa koy woo waa Kër Naar yi waa Arrêt Dubalees eh, maa leen di eh, bëggee eh, bu baax. xam nga moom dafa neewoon man dama demoon liggéey Géejawaay am na benn interview bu mu wax mais man kooku sama grand la sama papa la fii la doon nekk moo ma doon yóbbu foofu. may fanaan di entraîner seen tefes boobu ñoom ñoom ñoo ma xamul mais xam naa leen bu baax comprendre nga te tamit di waa waa géejawaay nañ ko dooleel ko waa ndax gis nañ oppam presam ndax doomu géejawaay la drapeau géejawaay lay supporter man bugguma ñëw stade ma koy ëppale lii dara dañoo dëggal boppam parce que man dama am fu ma war a jem waaw non man lu may gën a bëri may gën a di bëgg parce que su ma ko daanee dafa am fu ma war a jëm comprendre nga dafa am fu mu war a jëm dama bëgg waa Géejawaay nañ ko jàppale bu mu manqué dara di ko ñaanal yàlla wér gu yaram jàmm ak salaam ba bis ba yàlla may ma ndam nag waaw ma dem xooli leneen let's waaw. gis waa mhm. mhm. mhm. xam dafa jugee. Euh, mbooloo mooy doole. te ñooñ samay mag lañu ñoo ma jiitu si affaire bi ma jox leen cër bu mat sëkk xam ma te tamit dañ ne xale bu bu bu lotoom sedee ñu bokk ak ndab waaw mbagi ndab waaw xam nga nuñ koy waxee rek <laughs> comprendre nga loolu la demee sama papa Youssou Ndour woy na ko xale bu yaro ma ci tàngal yooyu sa gën a ngaay yaa koy yëg comprendre nga mais xam nga xam yombul nga woote bàyyi bàlla mbug nit bugg ko yombul mm-hmm. xam yombul ko waa mm-hmm. mais maa leen di sant di leen gërëm wallaay azim yàlla ba seen yaakaar tas te saa lépp lu nekk ni sama carrière man carrière bi laay sàmm te am naa ay mag yu baax sama staff ñooy si bu baax sama pokola pokola papa Salaam mention spéciale ndax moom ndax moo doon moo tax ma doon dem Pikine sama patron la sama papa la sama lépp la xam ma dama doon bëre añi lépp moo ko doon gérer si ñoom laa doon liggéey moom ak ñoom moom ma ñoom njaga xam ma mu boole mag ama heureusement ay mboq lañu tamit sama mag ama maa koy nuyu bu baax waaw di ko ñaanal jàmm salaam laa xam ma man su ma demee man fu ma dox ñu ne ma yow ak ñii da ngeen nuroo waaw comprendre na nga jàpp na ama yaa gën jàpp sama combat sama gaale fii la doon yeewoo mm. ñuy dem saal di ma fayal saal xam ma gars yi ñoo ñëpp ah, ñu ma jege xam nañ quoi mm-hmm. mais maa ñaan jàmm ak salaam rek jàmm rek laa ñaan si réew mi di ñaan tamit jàmm am bu bëri si réew mi. yaa balaa balaa woote ci côté mobilisation lañ gën a bëgg mu insister ci parce que tàkkusaan googu. Mm-hmm. dafa am daanaan yu ciy bëri. Mm-hmm. booy Dakar a ngi dëkk fii tout pare. Mm-hmm. ñëw bu jógee ña koy topp xam ne xam na ne beneen affaire la. Cheikh Super Jamono pour l'instant rek jënd na 10 bolok. waaw booy say deux noonu. moom nan la fa yéenee waaje parce que lañ gis open press bu dee booy yi ñëw nañ parce que tamit bee yi 3000 la nga ñaax booy pour ñu mën a duy stade bi. parce que làmb tamit ku daan ku nekk am foo de. ñun xale yu Médine lañu dëkk déggoo woykat bi woy na ko xale Médine lu ñu si dugal seen loxo ndam bi day ñëw. Cheikh Ba ñëw na fii léegi jënd na ay billets. Bamba Fall sànq vingt bloc la ma jox. comprendre nga. waaw. yaa ngi dégg sànq rek bloc yi ñuy tas. waa Medina ñoo xewle. tay noobul ñoo fi dëkk. Medina Gueule Tapée Fass Colobane. ñaar tali. xam ma maa leen di woo bu baax. waa Rëbës Plateau fii ay borom noo ay borom doole rek ñoo fi dëkk te xam naa ne bu ñu génnee jàpp jàppale ma barke Alaaji Fàllu Mbàkke ma andil leen drapeau te gis nga war na firnde bi ñëw na. waxal ak waa ji fii waaw maa ngi tamit xam ma kër bu ma juddoo bu ma yaroo. xam nga waa kër Bilal Fall maa leen di nuyu bu baax a baax képp kuy bokk famille Bilal Fall maa lay nuyu ndax suma yaay raaya xam nga sama yaay raaya xam nga mention spéciale lu ma xewle fii laa koy defee barke Serigne Touba maa lay ñaanal bu baax di nuyu waa Lembote yëpp maa leen di bëggee comprendre nga Simer maa lay nuyu baax Simer Cheikhou Mbacke waaw maa lay bëggee bu di nuyu xam sama international yi nag sama international yi dama bëgg a waa Medina ñu ñaanal leen ndax dañuy sonn si gox bi nekkul man kese ngàcce ngaalaama ku si mel ni Pata Ciss Amath Diédhiou xam ma Pape Mbodj xam ma Fa Bambara maa leen di bëggee bu baax di nuy moom su borom Suisse waaw ak ñaa borom Turquie maa lay bëggee bu baax waaw doomu nday Bokari yaa gàkku dee am ala ko mi wala ma yaa ndaaru tung pay konko mi fijata mi jalata mi golle ha ha ha ɗum ɗo jaaja wallitoɗan dade an de fof mayi billayi sa darike kono mi ƴawirta yimɓe ɓen ɗon ko ɗon mi ƴawirtama billah walla inchallah a feeti kana a darata pay konko a so daraki o yaltay tun ko gewo ko ko lambo ina hewrade nenan di nuyu di nuyu di nuyu tamit sama grand Malick day son si man moo Malick Fall moo ma yóbbu si xalifa canaba bi di nuyu Cheikh Zaloné waa jàppoo maa leen di bëggee Bekaay Issa moo ma doon yee chaque jour ak Sadio di ma yóbbu entraînement xam nga dafa metti xam nga maa leen di bëggee bu baax a baax waaw ak waa corniche ñoom vie sama booy ma foondoo ñoom raxmaan ñi ma foondoo ñëpp maa leen di nuyu so darike mi waray golle an nen tum mi liɓa mo a ah, iɗa anndi komin liɓirta yimɓe ɓen kon inchallah so jaɓaade o yalta ɓe jonnama avertissement ɓe cinq avertissement sare o jonna elan victoire waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw Boy Dakar. waaw loolu ci 10 combats man ba may bëre càndum de sama papa Kayre daf ma yokkal samay at aw moon sa âge pour am licence musuma gis càndum de te boobu càndum de bëri na ay 7 te bu ma ñëwee ëppalewu ma dara maa jum daanu. te fes laa teg comprendre nga lu ma lay waxaat rek may xale bi màgg na waaw victoire fu may yóbbu mooy fu ma doon yóbbu rek gàqu dee xam ma ni lu mënta ñàkk la rek moo tax ma jël ko nii di ko sant tamit si loolu mais yen xam ngeen fu ma nekkoon si làmb man si victoire bu rëy laa jóge si victoire bu rëy laa jóge 14 mars waaw kon fu ma doon yóbbu rek la may yóbbu ah compétir la rek waaw le mhm. déggoo sànq lu ma la wax sànq wax naa la ko dama koy répété waat rek nit lépp lu nekk sa kanam lépp boo jàngee alxuraan xam nga bu liyee xam nga mooy loolu waa yaa eh, man damay damay ñëw ci euh, bi ñuy ñëw léegi dafa am lu ñu sant loo xam ne neexul quoi. dañu tàmm di ko gis ci mbiru Medina mbiru Fass. Mm-hmm. heure bu ñu aayee rek day bëri simon. Mm-hmm. ñu bëggoon tey yow en tant que porteur de voix. waaw nga wax ak ñoom parce que tamit ñu ngi leen di yàqal ci benn côté. waaw parce que dem na ba léegi dañ ne mbiru mbiru Fass ak mbiru Medina bu ñu amee combat rek ñëpp dañuy teel a tëj. mais xam nga ci loolu tam nga wax ci sensibiliser nit ñi loolu tam dina nekk loo xam ne dinañu soxal bu baax a baax. waaw xam nga Medina nag xam nga gars yi dañoo dëgg ndëgal ko waa wala agim ay noobul lañu duñu yàq waaw maintenant dañ lay jox xam nga dox gox yi fii nii yëpp di leen ñaanal tamit xam ma nañ ñëw supporter si jàmm ñu ma ñëw xam ma ma defaral waaju ñu ñibbi ndax parce que man ak moom la ko waa yee di nuyu tamit xam ma waa Casamance maa leen di bëggee Moustapha maa lay bëggee Karamba borom aussi maa lay bëggee waa Ziguinchor Tafa Keba maa lay bëggee bu baax nijaay Kapsi Kirin gis naa seen ñaan bu baax a baax waa saal ba maa leen di bëggee yëpp Ziguinchor mais Abdou Salam sa doom mooy bëri sa doom mooy bëri am ngeen combat yow xam nga yàgg nga ci làmb mhm. xam nga bu baax li làmb wax mhm. xam nga bu baax sa doom ki muy dajee la mhm. ah bi naka ngeen ko préparé waaw Baye Balla ziar naa fi nekk ñëpp maa leen di bëggee di wax comme li ñu doon pare combat rek lañ ko pare amuñu benn ruq bu ñu bàyyi lépp daal pare nañ ko ci lépp lu mu mënta doon ànd nañu waa Médina pare ko suñu doom la waajal nañ ko comme lu ñuy waajalee ñeneen ñi comme lu ñuy waajalee ay magam waajal nañ ko tamit euh, le onze si kàttanu yàlla suñu borom dinañ xam ne bu sumee ko bu ñëwee taxaw dinañ xamal ne waajal nañ ko te di ñaan yàlla suñu borom yàlla bu dara tëwul yàlla nañu yàlla may ndam bu sedd guy yàlla na ko yàlla def ñoo ñoo ngi na ñëpp nag ñi ci jàpp ñëpp ci combat bi ñëpp di ziar tamit euh, tonton Pape Guilé jëkkëru Ndeye Sira waaw waaw ñoo ngi ko bu baax jàpp na ci combat bi waaw jàpp tamit aussi Cheikh Ba jàpp na ci Bamba Fall di ziar nag ñi topp ñëpp ñëpp Cheikh Ba Cheikh Ba ñoo ngi koy ziar bu baax di ziar tamit aussi suñu doom suñu lépp mama naar néegu yaayam lañ nekk nii combat bi dañ lu ci ne ñoom Kouthia tey ñoom euh, Tafa Cissé ñoom Fada Malick ñëpp ziar nañ ñëpp ñoom Lamine Gassama Abdourahmane bàyyi ñëpp ziar nañ leen te si kàttanu yàlla suñu ñëwee jouru làmb ja dina xam ne kii double nationalité la yor. ak sama papa laay waaw sama papa maa koy bëggee bu baax doomu nday Zilo waa maa leen di bëggee bu baax a baax xam nga di nuyu waa Tiwaan Pël di nuyu sama nijaay bu baax di nuyu jabaram yi yëpp di nuyu sama yaay di nuyu ñoom Saafaandu ñoom ñepp maa leen di bëggee maalaw maa lay bëggee bu baax nino borom mbay ja gis naa la merci jaajëf pom si Ousseyn Diagne waaw maa lay bëggee bu baax a baax Xaadim Gueye tama doon bokkam moom entraîné salle tamuy jaal polo téléphone yi maa lay bëggee iPhone yi grand maam Thierno taalibe sëñ Abdou Karim iPhone bu mu jaay baaxul xam mooy lu iPhone bu mu bu mu jaayul rek baaxul mooy nekk Sandaga maa lay bëggee bu baax comprendre nga waaw di nuyu Simer Simer maa lay bëggee bu baax a baax barke Serigne Touba Pape Oumar Koliba maa lay bëggee di nuyu waa Medina yëpp di nuyu xale yëpp di nuyu mag yëpp nañ ma ñaanal ak as jëm kanam elas kanam mille pour cent Medina bi maa lay bëggee bu baax a baax El Diaz xam nga elas Keeta ñoom ñëpp Mouhamed Seck xam nga maa ngi bëggee di nuyu tamit waa Dames bu may yeewoo di nuyu maire yi bi laa damay